kubaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu macha allah buur ngir ñu ngi lay fay bu baax a baax ñu ngi lay siyaar di la nuyu di nuyu sëñ Malick mi nga dendat ci wet gi moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu Dakar Instant ak ñu ko ñu ciy liggéey yëpp nga xam ne la boo xam ne moom it site bu am solo la si suñu liggéey di nuyu waa BTV BCTV nga xam ne site la boo xam ne moom it ñu ngi ciy liggéey liggéey bu rafet. Euh, su ko defee ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla yëgati leen ba ca kaw fépp foo xam ne yàlla yëgati na fa jant bi ba àdduna bi yëpp da ko dégg salmaxa bi mu koy tàng njàccaar bi du ko gis yàlla na yàlla yëgati fa sit yëpp ñu àgg fa ci doole alquran karim barke yonent yàlla mu sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu mbooleem koo xam ne yaa ngi ñooy dégg wala yaa ngi ñoo gis bëggoon nga ñoo gis wala bëggoon ñoo dégg Cheikh Mohamed Lamine Dramé borom bay mu ngi lay nuyu di ñaan suma kàddu gi yàlla la fekk si jàmm da ngeen coobare yàlla ko ah. looyu ah. waaw du ko weddi nag ndax yàlla mooy faalu li maa comme ni ko lay alxuraan ba waxee su fekkoon ne yàlla buy daf day dugg ci kër laaj borom kër gi amaana doomi séet la koy jox su fekkoon ne buy daf day dugg ci kër laaj borom kër gi amaana doom ji nangu yónnantu la koy jox waaye yàlla buy joxe ñaareel gis nga Muusaa bi ko yàlla bëggee fal daf ko booleek buur bu beew buur boo xam ne foogoon na ne kenn du ko wuutu waaye ndeke yar na ko koy wutu yàlla noonu lay mayee Mohamed Lamine Dramé it yàllaa ko may lim ko may eh, nga xam ne may na ko ko te nangu na ne yàllaa ko ko may waaye mu ngi ciy jaamu yàlla it nag waaye nag di ci dimbalante mbokki ja jullit yépp waaye nag di ko sante yàlla bañ koy puukareew ndax yàlla bu la mayee rek da koy sant la in sàkkartum laa si dana ko yàlla daf na su ma leen ñaa su ngeen ma ñaane danaa leen may waaye su ngeen santee daa leen dolli kon jaam bi lépp lu mën a am rek na waxal mu si xal mu din laajaat ndollal su ko defee yàlla dina ñëw gën koy dolli loolu muy li nga xam ne muy dimbale jaam bi mais ñun euh, damay wax ne mënuñu xamuñu lépp yàlla la yàlla mu ñuy dimbale rek suñ kàddu da ñëw mu ñuy wax muy ànd ak moom ñuy liggéey muy ànd ak moom ñuy jëf muy ànd ak moom su ko neexoon moom yàlla tey tey tey tey suba suba amaana ñun duñ def discours man damay wax ne képp ku la mën a wax na nii laa toll wala nii laa mel bu dëkkee Dakar na ko ma ngi lay xaar armel bu yoof noo mën a mel ak noo mën a toll ak loo jafe-jafe-jafe bis dana ñëw maag yow ñu bokk fa fanaan bu dut bu yoofit nekk bu Tuubaa lu nit ki mën a man ak lu la xéem-xéem-xéem xaar ko baq ya danañ ko sang-sangu daf mbaa ñu euh, sàcc ci wetam kon loo mënta doon rek jàppal na doomu aadama sànq léegi bi may ñëw damaa xool ma ne xoolal borom étage yi ñii xanaa bu ñu leen da duñ sóoraale bis bu ñu leen da wàccee di leen yóbbu ci suuf pour ñu kalaaseeg ñëpp moo tax yàlla ku yéeme la moo tax sëriñ si lu luñ mëntu nekk nañ ci boole ragal yàlla lépp lu ñuy def nañ ci boole ragal yàlla boole ci après parce que doomu adama ñaar rek la am muy avant ak après avant muy li nga passé après muy luy ñëw waaw. ñu ngi koy xaar tam xarit sore tout un mois quelque rek yaakaar naa moo ci des. Euh, kooku moom euh, Sénégal ñu ñoo nekk nit ñoo xam ne euh, léegi tey lu bari leer donc bu nekkee ci guddi képp ku nalawul da nga dégg xëralkat yi waaye ay bu ñu salaatoo da kenn ku nekk boo yeewu lépp lu lëndëmoon dina leer ñoom ñépp dañ nekkoon ci ay tappale ak wax lu leeru dégg naa benn boroom xam-xam di leen wax ne dañuy xeesal dañuy diwu dañuy nàngam wax nañu dëgg dañ wane loo xam ne nekkut ci yow loolu xeesal la diw sa der bi changé ko daf leneen loolu tam xeesal la waaye wax naa ci wal fajëri maa ngi jéggalu ci tudd gi ma ko tudd mu ne ma ne ki toog ñépp di ko wër mu taxaw na dëmm bët yi ci digg bopp bi lay ne yow mi xam dëmm xam nga ne ko kooku day fen euh, te léegi kan nga sañ a taxawat jàkkaarloo moom na ko dëmm nga yooyu monde boobu nit ñi dañ koo raw kon booy wax waxal lu logique te naam bi ñu ko daan am sax di ko gis daanu demee ni mu ko waxee nit nag mënoo sol ngooñ ba heure bu la neex wala nga dawal fas ba heure bu la neex wala nga ambila ba heure bu la neex nga xëy rek yëf yi dëgër nga xëy taxaw na sëriñ la ah mu nga géej jàngoog nañ ko xaar koo xam ne fondement sa kër mënoo koy gas nooy xaree géej Mhm. waaye man bu dama mhm. yi nervi lañ. Mhm. pourtant euh, ñëpp ko am. nervi moom bu dee ne maanaam képp ku ànd ak sécurité rek ñu bëgg laa jalgati ci yoon sa sécurité jëflante ak ñoom loolu nervi la kon ñëpp ko am. opposition bi ñoom ñëpp kenn ku nekk yaa ngi ànd ak ay ponkal ñu dar la. Hmm, ay xataa musiciens yi sax. ñu ngi ànd ak ay ponkal koo ci bëgg nayu ponkal yi ba max la mbaa ñu dóor la même ñun sëriñ si sax léeg-léeg gis si ñoo xam ne dañuy dox di ànd ak ay sécurité xanaa man rek maa ci repp dox du ànd sécurité mais sëriñ si bëri tey fu ñuy dem da ngay gis ñu ànd ay sécurité seen kër yi boo ñëwee pour nga yëg léeg-léeg nga gis ñu ba max la na la non jox nañ la audience nangam nangam xanaa kon ñoom ay nervi lañ yor donc nervi boo demee ba ci këru diine yi sax am na sëriñ soo xam ne tey boo doon laalee su subaa seen taalibe yi jóg xanaa ay nervi leen donc bu dee ne loolu muy nervi ñëpp am ay nervi Sénégal moom bu fekkee sécurité rek muy nervi ñëpp ko am man nag Sénégal ni ñuy politiquer ak man li ma gisoon ne noonu la war a politiquer du benn politique gu Sénégal ñu ngi ko yóbbu foo xam na tey parce que Macky Sall la tu hectare day wàcc buru tey rek di suba tu hectare day wàcc amul benn nguur bu dul jeex buru nguurug yàlla gi donc nag buñ nangu mukk bëgg daf bëgg a jël suñ kër

sëñ bi bu waaw bu dee ñaar ñu ko def gis nañ leen de euh, waa Jamra ñoom ñu ngi fi waa nañ wax ak ñaar ñu ko def mais ndax yow dangay ñëw ci karte bi dajee fak ay sàcc waaye ay agresseurs yu rey nit ba pare nga dem jël chef de quartier bi yóbbu yoonu waali bàllaago nekkut ci man loolu laa gëm yoonu waali sekk nekkut ci yoonu waali sekk nekkut ci procès bi man loolu laa gëm li ma la wax mooy yow ci sa site bi laa la waxe woon ne bi bàyyam gi naat na même pas une semaine laa ne yeneen galgalay ngay ñëw ci kawam yeneen programme yu war a rëy ñëw ci kawam yu bokkul ak li nga xam ne moom la génn ma teg ci ne xaw na maay jaaxal ci bàyyee bees yi ma ko gisal daf maay nuru ni lekk ak doomam waxtu wu juree doom ji doom yaay ji jigéen ji yaay ji day jël doom ji nëbb ko ko parce que bu ko gisee dana ko faat donc geer bi ma ko waxoon moo jeexul gaa yi ngi ñëw ci kawam beneen bi ci tege mooy Waly sekk képp koo xam ne dag d'accord nga ne Waly Seck góor jigéen la bëgg ngaa jur góor jigéen sax parce que baay yëpp bëgg a jur Waly Seck ku sa xel daj nag bàyyiwuma la non dama ne bépp góor gu sa xel daj bàyyiwuma la bëgg nga jur Waly Seck ak koo mën a dox donc maa ngi ci profité di wax ne bu leen tëj commentaire yi pour bu amee saaga man di ko liir parce que man loolu laa gëm li ci mën a nekk mooy baay bu nekk bëgg nga jur Waly Seck Euh, ndax man damay laaj nit ñi dañoo waxul dëgg am Thione Seck moo liggéey lu leer ñoom ñoo taxaw wax ne bi Thione Seck génn àdduna ñoom ñoo taxaw génn ay témoignages yu leer ay kilifa di wax misigam ni mu doon jaare yoon ak ni mu doon yeeyee doom aadama yi ak jëf ju rafet ju mu doon jëf léegi nag naka la loolu mën a amee mu taxaw gërëm doomam ñu attaqué ko ay yoon mu sukk ci roonam Thione Seck génn àdduna matagul 4 mois ngeen attaqué doomam tey ñi def pelante bi nii bi coola njëkk li amee ñoom njëkk ñooy génn taxaw dam ci kër coon sekk dam gis ak waali sekk léegi nag problème bi lan la est-ce que waali dafa néew doole moo tax ñu songaat ko ndax dañ ko bëgg a néewal doole wala leneen la loolu mu ci nekk mais du leneen beneen bi muy képp ku bëgg a siiw di nga jaar ci moom parce que gis nañ fi ay imaam yoo xam ne kenn xamul lañ woon gannaaw yàlla waale tax ñu xam leen wala ñu leen di jox defal ay interview lan nga def ci waale mu naan waale nii waale naa parce que ay imaam lañ waale leen génne donc balaa ñuy wax ci waali sekk ak góor jigéen ñi nañ wax ci imaam yi gàddu jaasi nañ wax ci imaam yi nga xam ne xëccoo imaam jaral na leen gàddu lante jaasi dégg nañ ko fi ba tàyyi jaral nañ leen daggante xaatim jaral nañ leen xulóoj jaral na leen leneen ak leneen ak leneen nañ wax ci imaam yooyu. waaw mais man na est-ce que nekkul ci ba pare parce que moom mu gëm ko ak mu ñàkk koo gëm léeg-léeg nag ma gis ay sëriñ su taxaw génn naan ñëw ne ci gannaawam ak ñu ne ci nangamam xëy na. dañoo ne ci gannaawam pour mu leen di dooleel man nag ñaar dërëm Wally Seck soxlu ma ko parce que teew du tee ma dépassu <laughs> man am problème boobu lijjantuwuma sax fu mu dëkk man noonu lay fonctionner parce que man bu ma gëmoon xaalis réussir naa parce que lu ne dañ ma koy proposé man man doxuma ci loolu lu ma nit mën a wax nag baax na baal naa la waaye Wally Seck bi ma xam ak programme bu ñu ko mën a tegal ak yàllaay kese mi génn ak sañ Moustapha non xam nga xam nga xam nga yàlla euh, euh, Moustapha Dramé waxi kese jotut sax yàllaay kese Moustapha Dramé borom waxi kese ah, non baatin muus sax am na ko <laughs> waa baatin mooy loo xam ne ne ci nit ki te kenn xamut ko moom la concerné yàlla xam xay bu te moo ko mbóotal <laughs> voilà mais Moustapha Dramé borom waxi kese man Cheikh Lamine Dramé ma ne Moustapha Dramé borom waxe kese xam naa ko nag dama ko xam déggalu ma dama ne xam naa ko kër Modou Souti la dëkk xam naa ko xam lépp xam naa seen kër fépp laa xam man koy bor na du jox seen tund woowu quand xam naa ko waaye dama ne bës la bëggoon moo taxoon mu jël montor jox Papa na ko joxal ma waali sekk na ma wéy kon moom moo njëkk a dem safara man dama foog ne safara la taxaw di wax ak nit ñi mais ki nekk biir safara nu may wax ak ñi ne ci biti bu mu yóbbu safara parce que moo yëkkati montor or jox ko fecckat fecckat boo xam ne da ko ko jox ñëpp xamoon ko ci fecc yu Ndour yóbbu ko biir si mu dam ku ne nga yëkkati montor xarit ak fecckat bi ba jox ko montor na ko joxoon ma woy kat bi ki ngay wax ne maanaam ku dem ci koo koosaram safara la jëm est-ce que Moustapha xamut soo ko wax ak ñun. dama ragal ne safara la nekk soo ko wax ak ñun. parce que problème bi muy Moustapha du Wally Seck la soxla. bës la soxla bu leen fàtt na dafa duggoon ci kàmb bi ay temps chaque jour ko jëfee am na fi benn vidéo bu mu fi def naan am na ko accident kilifa gu mag la namoon ci Cheikh Amar sax man nga koy wax ak ñeneen ñu mel noonu parce que lu mu ci soxla rek muy nit ñi tiit di ko oo dina am ay quatre personnes yoo xam ne dañuy dee ay nangam ak nangam lu ne mu wax ko daf koy wax rek ngir maanaam nit ñi oo ko wala mu am bës loolu lay doxee mais wax naa ne bës bu ne bis lay xaar donc Moustapha borom waxi kese suuraale na bis dana ñëw danañ la tënk dañ la sul bàyyi sa xel beneen bi it muy Waly sekk mi ngay topp du waali sekk la soxla moo ngéej la soxla nee na moo ngéej lañ jël turam turum ak turu yaayam jox ko li mu wax amut turu yaayu ngéej ku ko soxla am ko parce que giwéel yaa ngi koy wéy mu ngi fépp xam na ne seen milliardaire la moom la bëgg dóor moo ngéej nag boo boo ko yëgee ak boo ko yëgut waa waa ji mu ngi la tiim te boo daful nànk dina la rendi parce que da nax rek dóor la lay def dóor dong la lay def sa digganteeg Wally sekk bu amee problème rek la leen ko yéen la concerné démb bu ngeen di ànd boroom waxi kese yëgut ko su ngeen amee problème rek la xaat leen ko man gëm-gëm boobu laa am waaw non yàlla ay kese moom xam nga day leer yàlla moom kese léppam dëgg lay do waaw yàlla ay kese moom man dama gëm ne léppam dëgg lay do waaw waxi kese parce que li dara taxawut ci waa nga koy jël euh, euh, moom benn wax rek laa ci waxoon bëgguma ci suri wax naa ci wàll euh, bëgguma tudd si seen kii bi wa waaw wax naa fu ne mais li ma soxla mooy dama ne man dama ne nañ ma jox nañ ñëw ma ànd ak ñoom jël coupe bi bu ñu paree ñu fay ma mos nañu koy dégg saay xaw ma ndax damay mandem bandit la am taxawaalukat la mais dama man mystique. mais dama ne nañ ma jox équipe bi ma jël ko bi ñëw loolu laa wax c'est waxuma leneen. fuleer leer nañ laa ko teg buñ ma buñ ma convoqué man ak ñoom ñu toog ma wax leen condition ñu d'accord ko ma jël coupe bi ñëw amul leneen

politique bi kay mystique la politique moom lépp mystique la Afrique moo toll foo xam ne mystique moo dominé li ma wax mystique mooy li dominé moo tax ñi xam ak ñu xamul yëpp dañu ñëw waaye nag ndax ñi dee mystique leen rey parce que politique politique léppam sacrifice la d'accord naa mais bu fekkee ñi dee ci politique bi mystique mu leen rey donc ñi dee ci géej gi lu leen rey ah waa lu tax ñu nangu fee yàlla ñu bañ fii leneen <laughs> ku ne mu ngi koy def tali yeeg yëpp ñu ngi fi accident yoonu Fatick bi li ñu def jàpp ci accident kenn xamu nu mu toll Dakar gi li ñu fi gis ci accident kenn xamu nu mu toll mais sénégalais moom dafay xëy rek wax du jàngat du xool. waaye est-ce que loolu yow troisième vague ci wàllu deuxième vague ci wàllu violence est-ce que wax naa ko depuis huit ans huit huit huit mois kon wax naa ko depuis vie mois ca gannaaw wala war na ma neuf ans neuf mois kon. juróom-ñeenti weer war na ko mat maa ko ko waxee woon ca yoof mais site bi ma ko waxee des na am doole li problème mooy bi ma ko ko waxee bu fekkee na li ma ko wax déggoon nañ ko konoon cool Ousmane Sonko leeg yi am ak yi yëpp du am yaakaar naa bi Ousmane instant yaa ma jël ma wax li may wax avant loolu ci laa waxoon ci kaaxu aadama Faye su ma juumul voilà dina am problème non aadama politique am bu daful nànk mooy yàqu nan dégg li ma koy wax parce que man soxluma ña dërëmam mais manuñ cee man ma wax li ma gis aadama fay wax naa ko ko bu yàgg bu daful nànk politique am yàqu parce que Macky Sall lañ ko xamee même bu problème amee nañ daf taxaw seetlu ci boppam avant tout burut loolu dina ñàkk pouvoir dina ñàkk opposition parce que boo boo tàqali ko sa papa exemple say xarit mën nañ lay ragal kon bu dara jar moom mooy tàqaliko ak Macky Sall même bu Macky sàll da dam ñoom lañ ànd dam bien sûr amul lu mu mënta nekk nañ fexe rek jox ko Grand Yoff gi mu soxla parce que man ragal naa ne bu ñu ko ko joxee dina leen jëriñ dina leen liggéeyal sa parce que bëgg na ko moo bu àndul ak Macky mën na métti ci moom parce que Macky Sall demi-finale ci la nekk attention élection locale demi-finale la ñi naan troisième mandat nangam mag demi-finale la ci yow mi xam bu gañee élection locale yi nag bu gañee élection yi mairie ah yow miy bañ mu def troisième mandat damal nga nalawi boobaa sénégalais ñoo ko wax na ko kat yaa ñu doy su fekkee da koo perte nag képp ku am saak damal jaayi ko te xam na day takk wëli sam jog lii mooy li ci nekk mais élection locale moom demi-finale la Macky Sall mais nag li ma ko doon wax yépp parce que waxoon naa ko ci kaw Bougane Sëli bu Géejawaay boobu mu ngi ci koso gi ne ko dina yëngal Géejawaay te gis naa ne mu ngi yëngal Géejawaay dañ ma oo téléphone yónnee ma mu ngi yëngal Géejawaay bu baax a baax a baax na fexe nag boole APR bi boole ñi nga xam ne dañoo ne ci gannaawam jëflante ak ñoom. dimbalante ak ñoom def politique bu rafet te mu bàyyi xel Bougane Sëli ci géejawaay bu ko daful mën na ci am déception bu rëy loolu maa ngi ko koy wax Macky Sall dama ne entraîneur la mais football kat la amul entraîneur la mais football sànq bi may ñëw dama wax sëfoor bi mën na ko xool nga pourtant dañ la liggéey mais mu ngi liggéey mais nag ñi mu pour ñu football ay liggéey kat la amul ñu ko liggéeyal la amul bëriwut ci bokk ay benn benn ngay gis ci ñu ko liggéeyal ñi nga xam ne ay ministère lañ mu fal leen. ñi ay nangam lañ mu fal leen est-ce que ñu ngi koy liggéeyal Macky Sall avant muy xalaat Sonko di xalaat opposition bi di xalaat keneen ak keneen na xool ñi mu àndat d'abord ba pare ndax ñu ngi koy liggéeyal man nag bis bu ne ma wax lu jëm ci moom mais amaana dama in su ma wax daf ko intéressé gut mais bu ko intéressé wu tey suba dana ko intéressé loolu moom maa ko wax. waaw ñu ngi wax sénégalais yépp ak raq yi mag ñi suñu jabar suñuy jigéen ne ñu daf ndànk xam na Sénégal ñoo ko bokk dara jarut xeex dara jarut xuloo dara jarut rayante képp koo xam ne centre nga ne nervi bi ñuy wax ci nga bokk da nga jóg rek pour faagaagal sénégalais damal nga toog bu fekkee am na su fekkee amul yow mi koy wax bul jaxase sénégalais yi maa ngi wax état bi ak ñu ànd ak moom nañ xam ne opposition la ñu woon ñoom démb il faut kon tey opposition am parce que suba pouvoir dafa war beneen bi ca tege muy opposition bi benn opposition moo am Sénégal muy Ousmane sonk opposition amul bu dul Ousmane Sonko opposition nag côté bi ko Ousmane sonk ëppee sens mooy Ousmane sonk ay nitam dañuy topp action ba mu jeex te daf leen encadré teg leen ci yoon bu leer wala moom lay wax euh, damaa wax ci Ousmane Sonko ma ne gisuma gisaguma yoonam wax li ma ci wax ne gisuma mu nekk gisaguma mu nekk président 2024 ma teg ci ne yàlla man na ko koy def nag te duma laaj waaye su ma gis-gis laa wax yàlla mën naay def li may def nëbb ma ko bi ma waxee loolu am na ñu ma saaga waaye am na koo xam ne dafa yëgati téléphone am xoo ma waxtaan ak man laaj ma lan nga lan ak lan nga yaakaar ma ne ko lii la ak lii mu yëgati 250 000 jox ma moo tax ma ne la ndawi Ousmane sonk yi dañoo farlu il faut mu leer loo bañ bañ jomboor nangul ko gudd nopp Ousmane Sonko dafa encadré ñi mu àndat te da daf leen daf leen yar ci professionnel boo xam ne bu ñu la jegee sax dañ lay xëcc ci seen bopp liñ bu ñu la waxee rek mu convoqué la man nag nekkuma Pastef pour mu leer APR laa bokk pour mu leer sama xaalis dama koy génnee di ko def biir APR ñëwal fekk ma fi ma dëkk ma yóbbu ay secteurs yoo xam ne politique génne suma la di ko financé

Mar Diang mi nga xam ne tey mu yor sama communication fu bëri fu may dem moom moo mag ma may ànd di jéggalu Sénégal yépp lépp lu ma wax kum blessé nag ma jéggal képp ku ci ànd nag ma ñaanal yàlla ku ma saaga jégal naa la Cheikh Mamadou Lamine Dramé Mbour wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf